أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على من أرسله رحمة للعالمين وجعل دينه وشريعته خالدين هدى للناس على مر القرون mushahidin alkiram asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu santee borom bi subhanahu wa taala ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen nuyu nag si dëkk bu tedd bi di Touba Touba al Mahrouz Touba bi nga xam ne suñu waajur suñu soppe suñuy lépp a ngi ci biir fii ci Touba ci ñuy dund ak ñi nga xam ne ña nga ca watu borom bu tedd bi subhaanahu wa taala Touba ku ko wax wax góor gu mag Touba ku ko wax wax kilifa gu mag Touba ku ko wax wax boroom xam-xam bu mag Touba ku ko wax wax ku jege woon boroomam Touba ku ko wax wax ku dëkkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ba tuddee boppam xaadimu rasul xaadimu rasul tey nag ñu ñëw fi émission bi nga xam ne man Seyda Fat bintu Diop moom laa leen di defal àjjuma bu jot waa GFM nag toxal lépp lu ñu am. indi ko ci dëkk bu tedd bi indi ko ci bërëb bu tedd bi bërëb bi nga xam ne bërëb bu yaakaar la ñu fas yéene nag waxtaan fi ak yéen ci li nga xam ne rek moo fi xew ci li nga xam ne moo yëngal àdduna yëpp tey muy màggalu Tuuba macha allahu taala ñuy nuyu nag mbooleem koo xam ne rek yaa ngi toog jàkkaarloog sa petit écran ak ñi nga xam ne ñu ngi koy déglu itam ci seeni rajo waaye nag ñu jël nuyoo bi yëpp macha allahu taala egg ci suuf nag sukk raam ñëw ba ci suñu xalif général Sidi Makhtar Mbàkke yu mu baax mu yiw moomu nga xam ne macha allahu taala yàlla ko fi yàlla bàyyi mu gudd fan lool mbakke wéer lool mbakke yàlla bàyyi ko fi mu yàgg ñoo ñaanal ndax nitu yàlla lu mu ñaan yàlla nangu ko kon Mbàkke Balla ñoo ngi lay nuyu di la ziyaar di jël nuyoo bi yëpp nag teg ko sa loxo nga séddaleel ñu ko sa njaboot góor ak jigéen mag ak ndaw di ci jaar nag di ziar di ndokkeel yëpp mbooleem xalifa diine yi xalifatul laahi fil eh, ardi aw alal ardi ñi nga xam ne tey ñoo fi nekk ñu leen di jox nuyoo boobu ndax xam ngeen ne ku baax kii ñëpp a ko bokk di nuyu yi tamit suñu mbokk yi nga xam ne macha allahu taala ñu ngi ñuy seetaan mais ñu ngi nekk ci ay lëndëm lëndëm moo xam ci hôpitaux yi la moo xam ci prison yi la fu ñu munti nekk ak nag rawatina ñi nekk ci bitim réew seen xol yëpp ñëw fii ci Touba waaye jëmm yi mënul ñëw ndax la suñu président bi waxoon rek ne bëgg a dem taxut a dem waaye mën a dem ay tax a dem kon nag yiw bi yàlla nañ ko yàlla booleel. tey nag fii si Touba macha allahu taala ma am nag macha allahu taala ay invité de marque ay invité yoo xam ne waxuñu ne bu ñu doon góor. ndax yàlla borom bi subhanahu wa taala kat li mu wax baada auzu billahi min ashaytani rajim dafa ne man amila salihan min zakarin aw unsa fa huwa muminun fa la nuxyiyannahu xayaatan tayibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu yaamaluun yàlla borom bi subhanahu wa taala dafa ne képp ku ma liggéeyal moo xam góor nga moo xam jigéen nga pay ba daal benn la ci gàttal moo tax nag tey waa TFM nag indil leen macha allahu taala kii ci sama ndeyjoor ñu koy wax soxna Bintu Mbacke Mbacke Balaye sa maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay walbatiku nag ci sama càmmoñ macha allahu taala yàlla jox ma ma am itam soxna Bintu Diop soxna Bintu yow it jëlal sa micro ah macha allahu taala tey daal yi fii neex na neex goo xam ne. lii sama papa ja doon wax Serigne Mansour radiyallahu taala anhu ne yëf yi dafa ala ndax ñun ñi fi toog euh, soxna Bintu ñooy Fatima yi Fatima nag buñ ko waxe ñun ñooy budaatun ñun rek la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne fatimatu budaatun min nii Fatima daggat la ci man man yuzi wala mu ne yuzi nii wa yuribuni ma yuribuha fatimatu sayidatu nisaau ahlil janna suñu papa ju tedd jooju te madinatul munawaras moom sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama dafa ne woon fatima dagget la ci man képp ku ko lor man sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama nga lool waaye képp ku ko teral wala nga loo ko defal rek man yonent bi nga defal sallallahu alayhi wa sallama wëlbatiku nag xool saxaaba yi daane ndax xam ngeen kan mooy sang jigéenu àjjana ñu ne ko ah déet kan moo ko xam ku dul yow mi nga xam ne yow la yàlla yónni mu ne faatima mii mooy sangu jigéenu àjjana kon nag Mbàkke bu ñu yàlla mayee ñu tuddee ñu kooku ci bés bu tedd bi ki ko liggéey di Cheikh Amadou Bamba te ku nekk xam na ne laysa nabaatu lati yanbutu fil jinaani ka misla nabaati lati yanbutu fil falaat saxayaay du nuroog mukk lu ñu saxal sauvegarder ko di ko arrosé ba mu jebbi te jebbeem googu mooy Cheikh Ahmadou bàmb moo jóge ci soxna jaariyatullahi bu so ah macha allahu taala soxna jaari moom nga xam ne moo ko dalal baa macha allahu taala liggéeyu ndey añuk doom tey day macha allahu taala suñu sang bu màgg bi ba mu liggéeyee ñëpp seen xol sedd na kon soxna Bintu Mbacke Bala ay sëcc sa barke maam. ma lay may egg ba ci suuf nag di la sukk ndax yow wa wa laa war toog sax si kaw may toogandoo ak yow waaye nag xam naa liggéey bi rek ñëpp dinañ ma ko baal su ko defee ñu jox la kàddu gi nga nuyoo Mbacke nga nuyu xam ne nag waa àdduna bi yëpp a ngi jàkkaarloog yow di la xool Mbacke bisimilah. aouzu billahi sami al alim mina shaytaani rajim Seydina Muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmain mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi ñuy seetaan seen télévision Futur Média ñoo ngi wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ginnaaw bu ñu nuyoo di ziar di jiital ci ziar bi suñu xalifa a Seex Sidil Maxtaar di ñaan suñu borom yàggal taxawaay bi. ba yéene jim yéene liggéeyal lislaam yéene ko ci toolub sëriñ tubaab bi suñ borom kàttanal ko ba mu yeggale ko ci sagoom jërëjëf ginnaaw nuyoo bi ñuy nuyu kilifa diine yëpp di ziyaare fépp fu nit nekk ñu koy ziyaar te di leen baalu àq di dellu di baale àq di jégglu ci euh, yëkkati kàddu gi te xam-xam bi néew lool waaye ñuy sawar lool di dend ak suñu yaay suñu suñu lépp muy soxna Faat Bintu nga xam ne cofeel gi ak yéene ji moom moom lu yàgg la te mënee su koo leeral fi mu ne waaye di di la xamal rek lu jiitu tey yàgg nañoo bég ci yow. macha allah ñu topp seen mm-hmm. kon boo ñu dalalee fii duñu am lu du sant rek ak gërëm am maa toogaay beeg leneen nag ñun dañ koy rafetlu ñu dara lu ñuy wax yaay suñu yaay yaay suñu kilifa ci xam-xam. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Mbacke Balla dégg ngeen soxna seydaa Bintu Mbacke nuyoo bu tell tedd boobu nga xam ne moom la nuyoo à lii rek la ñuy xaar ci yéen léegi nag ma walbatiku sama càmmoñ daal sama càmmoñ nuyu nag sama sama doomu bopp Seyda Binta Diop yow tamit euh, tafaddali mashkura aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin seydina muhammad salallahu alayhi wa sallam mbokki seetaan ñi ngi leen di sant di leen nuyu di jiital ci nuyoo bi suñu xalifatul am di tariqal muridiya ak sëriñ Cheikh aw sëriñ Sidi Moxtaar gannaaw bu loolu jàllee ñu nuyu kilifa diina yëpp ñu ngi nuyu suñu mbokk mii nga xam ne yàgg nañ koo sopp lool tey yàlla dogal suñu gisee muy soxna Fatou Bintou Diop ñu ngi lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban bik jëkkër jërëjëf alhamdulilah <laughs> kontaan naa bu baax macha allahu taala ah tey nag maa ngi toog ak sama doom yu tedd yi man maa gën a kontaan parce que man bu doon sama sago bépp defe naa ne ñëpp kenn sañu réer waaye ki nga xam ne yàlla bu jëlee ndénkaaneem moom lay wëlbatiku joxaat ko teg ko ci loxoom commencé nag responsabilité boobu keroog ba mu bindee aadama bind xawaa ca moom ca wotam ca benn bakkan ndax yàlla moo wax ne yaa ayyuhan naas ittaqu rabbakum allazi xalaqakum min nafsin waahida bu mu bindee maam Hawa ca watu maam aadama alayhi salaam la ko boole woon responsabilité bi dugal leen ñoom ñaar àjjana ba ñu tooñee ñoom ñaar ñoom ñaar la yàlla euh, wax ak ñoom wax ju réy ja mu wax ak ñoom ñu daal di tuub yàlla génne leen ñu jël responsabilité boobu mu continuer di dox ci kaw suuf macha allahu taala responsabilité boobu ba nga xam ne ulul azm yi ñi nga xam ne ñoom la yàlla tànn ci yonant yi ku nekk xam na ne seen biir njaboot soxna Bintu ay jigéen ñoo ci ëpp boo seetee diggante maam Ibrahim ak soxnaam sa Haajara keroog ba yàlla naree sas dëkk bi nga xam ne mooy dëkk biñ ko jëkk a jaamoo yàlla muy inna awwala baytin wudi'a linnaasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin boo ko yàlla naree sos jigéen la fa yabal ne ko demal nga liggéeyal ma fa jigéen ju nangul borom këram macha allahu taala damay wax ne Serigne Touba li mu nuroo ak yonent li ko li nuroo ak yonent bi daa bëri ci biir mbir yàlla borom bi subhanahu wa taala itam bi mu naree sos lii muy Touba gi mu jox ko góor gu baax gii waaye mu jox ko ndey ju mel ni soxna jaariyatullahi bu sa yow soxna Bintu ban jàngat nga am ci relation bi nga xam ne macha allahu taala du Ahmadou Bamba am na ko ak waajuram bu jigéen boobu di soxna jaariyatullahi bu sa waaw soxna Faat Bintu relation boobu luy neex a jàngat lay doon muy relation diggante waajur wu mat waajur ak doom juñ awale fañ ko war a awale te yàquwut ndax euh, su ma nee waajur wu mat waajur muy soxna jaara radiyallahu anha euh, dafa mat waajur ba noppi ginnaaw buñ ko taxawoo moom ndax dafa tàmbalee ca kaw ummahatul muminin ñooy suñuy maam loola tax soxna Aysatu Waalo mi waajuru soxna jaara jàngat ci ñoom lu baax mais xeeñ xeeñtu loola topp ko ba tax mu doon jigéen joo xam ne dafa yoroon daara ci kër Maam Mor Anta Sali daan jàpp ci wet gi sëñ bi di jàpp ci wet gi mu yor doomam tàggat ko jaarale ko fa mu ko war a jaare ba bi ñuy wax ci fukki atak ak ñeent la soxna jaara toll mokkal alxuraan noppi ci xam-xam yi mu waroon a jàng ñu teel koo yóbbu kër mu taxaw fa taxawaay bu mat taxaw fa taxawaay jigéen ju nangu jigéen ju am kilifa jigéen ju bëgg lu baax te bari yéene ju rafet looloo tax kon relation bi diggante ñoom ñaar mooy waajur wi dafa mat ba noppi suñ borom taw feexal ko ndax yenn mbaax yi mbaax goo gis gu ne taw feexul suñ borom da caa jiitu waaye baax gi mu baax matale gi matale te doon ne ko ci waajur yu kawe ñuy wax wal baladu tayibu yaxruju nabaatuhu bi izni bi izni rabbihi loolu moo waral ba soxna ay waalo di maamam mhm. doon kam war a doon soxna jaara di waajuram doon kam war a doon matale ko te yàqutub liggéeyam ndax yéene ju sell ja li ñuy wax yéene moo ëpp pay jëf bi muy dem kër yéene ju sell jëm yéene woon ak kam fi yéene woon a indi kooku la ko suñ borom wërsëgalee ba muy xaadimu rasul kii tay kon relation waaw soxna bindu foofu dëgg la hmm. wal baladu tayyibu yàq nabaatuhu dëgg la mhm. waaye lan nga ñu mën a jàngatal mhm. wax ko nettali ko mbokk yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloog yow mhm. ci ay jaar-jaar walla ci ay jëf-jëfu wala soxna aswaalo moom nga xam ne soxna Aysatu mi nga xam ne mooy waajuru soxna jaara nan la yore woon soxna jaara ba soxna jaara ci fukki at ak ñeent ca temps boobu li liy ceddo ca temps boobu liy réer waxuma sax fii ci Afrique noire waaye ca fa dëkk ya gënoon a jege fa yonent bi dëkkoon nan nan la doxale woon moom ay mbiram ba tax mu teel a am lu mel noonu ba mën cee jaarale doomam ju jigéen jooju macha allahu taala. fi mu ko jaarale mooy li ma la wax rek da borom këram dafa yoroon daara waaye moom yàccaaralu tutoon fi nga aaya bi nga ubbee rekk man yaamal mina saalihaat képp koo xam ne def nga lu baax moo xam góora ko def wala jigéen bu fekkonte ni jigéen dafa yàccaaral narul dara góoree jàngale góoree def lu baax kon soxna Aïcha Walo loolu du ko ci fekk waaye eh, fi may wax intellectuel ci moom la commencé ndax moom moo matale woon jàngale alxuraan ba noppi daan yor liggéeyu kër ga te dara tardé wu ca koo xam ne ñaar yëpp la boole woon te dara gooyul boole woon te benn booyu ci bu ci ne sax da ngaa génn résultat bu baax ndax ay kaang dañoo mokkale ci loxo soxna ay sawaalo waaye ay jigéen ñoo xam ne ay reyukaay lañ mën a cere mën a togge añ dañoo jógee ci loxo soxna ah loolu de wax ko bu baax njaboot gi dégg ko mana mooñ mën a araw mën a mën a araw mën a togg añ bu baax teel koo noppi euh, sëriñ bi jaboot lool dong bu ne di perturbé te mës ta waaw kay te mësta énervé mësta énervé kon soxna soxna bintu Mbacke mësta énervé fa laay teg fa laay fa tegal sa baaraam foofu ma ñëw soxna bintu ñun gis nañ ne léegi ne ñun ñun ñun jigéen ñi léegi jigéen ñu wex lañu jigéen ñu gaaw a tontu lañu moo tax macha allahu taala gis nga àdduna bi léegi sëy yi ni muy demee benn sëy amatul at wala ñaari at léegi sëy bu ñu takk ren balaa déwén nga dégg ñu ne ku nekk dem nga sa yoon loolu nag nekk loo xam ne lu métti la ci àdduna bi ñu koy ñaan ci barke dëkk bu tedd bi sëy yi yàlla si yàlla dugal loxoom waaye tamit jigéen ñi war nañoo góorgóorlu góor ñi gën a xoolaat suñu bo seen bopp ba ñu téye loolu ndax sëykat dafa nekk lu sacré kon damay wëlbatiku rek ci sama doom ji macha allah ñëpp wax mais yow tey boo doon jàngat soxna Astou Walo noonu ci jamono jooju nga xam ne jamono lëndëm la woon jamono ceddo la woon moom nu ni mu rëccee ba am doom ju mel ni euh, soxna Jaaratullaahi bëri orienté ko mais li ma si gën a neex ni soxna Bintu daanale mu ne waañ wa gooyul waaye daara ji àlluwa yi tamit euh, euh, fompuwul lépp mu boole ko loolu lool loolu nan nan nan la mu amoon wasatiya bo parce que maa ngi leen doon dégg barki démb la defe naa ci alwasatiya ak oustaz Jili waaw comme li soxna Bintu wax rek mhm. soxna ma asawala xam nga loo gis it dafa am base mhm. loo gis dafa am cosaan mhm. parce que ay waajuram noonu lañ yare moom maam asawala ba mu mën a jël soxna jaara yare ko noonu macha allah maanaam booba ceddo amoon na leneen amoon na waaye fa fekkoon ay waajur ma sawaalo mhm. ñoom bokkuñu woon ca côté ceddo ga hmm. maanaam dañoo nekk ay nit ñoo xamante ne jàng alxuraan lañ xam jaamu seen borom lañ xam liggéey lañ xam yar lañ xam loolu lañ opté woon ñoom léegi bi ñu opté loolu nag kon kun mën a yor càll la googu rek ngay mën a toog mhm. ci maam asawaalo foofu la soqi ko ba jël doomam def ko comme nam def na maam yare ko moom na ko maam yare ak na ko ay waajuram yare mooy lan mooy jàngale alxuraan comme ni ko soxna Bintu waxee soxna maam Asawal ku ne xamoon na ne ci wàllum éducation da ci doon yëngu. boole woon kook nag liggéeyu këram jàngale wul woon kese mais da doon jàngale boole kook tardé wu dara ci li nga xamante ne moom lañu suñ borom defal muy jigéen moom sëy rek ak lijjanti këram. ak toppatoo borom këram ak toppatoo njabootam. jigéen bi ko suñ borom di bind loolu rek moom moo tax bokk na ci li tax mu bind ko. tax mu bind ko loolu bokk na ci waaw kay. loolu kese la wala bokk na ci déedéet bokk na ci du loolu kese waaye bokk na ci. Hmm. kon sëy bu ko kenn deltul gannaaw. non non kenn du ko def deuxième wala nga koy def troisième mooy première. Mm-hmm. toppatoo sa kër toppatoo sa borom kër. ak sa njaboot toppatoo sa njaboot. Mm-hmm. leneen li ci des nag soog di ñëw. Mm-hmm. parce que jigéen loolu mooy rôle am mais soxna bind foofu il faut que ma laaj la. waaw xam léegi àdduna bi dañu gis ne. ñun jigéen ñi léegi. dañu jël suñu tànk teg ko si tànku góor ñi wala sax ñu bëgg leen a jiitu mm-hmm. ñu ba nga xam ne ñun léegi bëgg nañu bu sa ji tabaxee kër nga tabax kër mm-hmm. bu sa alaaji yóbboo yaayam màkk ak papaam nga yóbbu sa yaay màkk ak sa pap bu sa waaju bu sa alaaji gaaree oto bu bees dernier cri yow nga gaare bu ci bi wetam bu jëndee pàkk Touba yow au lieu que nga sëyi ci kër ga toog fa jàppale ko ak i mbokkam waaye da ngay concurrence ak moom ne yow tamit sëñ bi lijjantil leen ma pàkk ba ma am ngay ngay def muy def léegi rivali rivalité boobu nekk ci diggante góor ñi jigéen ñi ndax loolu tamit dina tax taxul causewul euh, acharnement bi nga xam ne gis nañ ko léegi ci éducation bi bien gis nga soxna Bintu loolu moo indi problème bi muskila bi mooy loolu. parce que jigéen léegi dafa bëgg a def boppam góor. maanaam ci lan la xool muy am na loo xamante ne sax ñu ngi ko fiy jéem a wax mooy parité. parité waaw te loolu mun ta am. égalité entre góor ak jigéen mun ta nekk parce que suñ borom moo binda noonu bu binda woon góor ak jigéen yam kon du jël góor di ko dénk jigéen. kon du mën a nekk. Uhuh. kon man gis naa ne bokk ci naa ci liy yàq sa mooy loolu ngay wax. Uhuh. su amee oto nga am oto su tabaxee kër nga war a kër bu xëyee nga war a xëy. dëgg la su xëyee man ngaa xëy waaye yow dafa am leneen loo xamante ne nii moom la la yàlla teg ci sa ndodd ala atiq la yàlla teg muy sa wàccuwaayu kër gi muy sa borom kër ak sa njaboot na nga sàmm sa borom kër sàmm sa kër sàmm sa njaboot loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ la fi indee leneen li ci des nag mën na cee ne ndax liggéey jàpp la sa borom kër mën naa nekk mais soo xoolee ne ku góor kii maak moom ñooyam li mu war a def laa war a def bu xëyee damaa war a xëy may abandonné kër gi loolu du sotti bokk na ci problème yi nga xamante ne moo indi tas yeeg problème mu sëy yeeg yooyu yëpp mooy diir mbagg sa borom kër ca jëkkër sang la du morom waroo koo diir mbagg man daal noonu laa ko gisee. waaw dëgg la noonu laa ko gisee noonu dégg ngeen waa adduna bi yëpp yéen ngi ne ngi jàkkaarloog soxna Bintu euh, macha allahu taala nee na kenn du diir mbagg ci sa boroom sa kër waaye soxna Bintu yéen ñaari Bintu yëpp sax laay jox question boobu. xam nga yàlla bi mu bindee am na jigéen ñoo xam ne am nañu chance am borom kër. am na jigéen ñoo xam ne am nañu chance am waajur bu leen tenir am na jigéen ñoo xam ne am nañu chance am frère bu leen yor waaye jigéen ji nga xam ne nag yàlla mayu ko borom kër. yàlla mayu ko waajuram boo xam ne mën na koo saytu ak moom ak njabootam yàlla mayu ko càmmiñ loo xam ne mën na koo yor boobu jigéen itam lan la ko lislaam préparé ci kaw suuf moom tamit soxna Bintu. waa soxna Faat Bintu jigéen jooju. waaw euh, maanaam bu ma waxee beneen baat ci wolof comme li wolof fi naan. Mhm. yàlla du tëj buntu tëj palanteer. wàcce rido ndax maanaam bu fekkee yàlla may na ko waajur mhm. bu waajur wa jàngut mhm. ñàkkut ne waajuram wu jigéen xañ na dana jàng mbaa mu bëgg a jàng mhm. ndax euh, gis naa su koo xam ne daana jaay gerte di ca jële dara di ca fayal doomam muy jàng ba doomam waaye kon génn na liggéey génn na liggéey waaw waaw toogu nag loo bëgg wax ki toog ci biir kër gi waaw dama li ma bëgg a wax mooy xam nga tey soxna si nee na ji xam nga man maa ko posé question bi ne jigéen ñi dañuy rivalante ak góor ñi loolu loo am la waaye nag dafa am beneen couche jigéen boo xam ne mhm. gis nañ ne macha allahu taala amul borom kër moom yàlla baaxewu ko wala wal wala ba mu ko amee génn na àdduna mhm. bàyyi ko ay tuut tànk mhm. amul waajur bu ko mën a yor amul kenn ku ko yor boobu jigéen itam l'islam bàyyiwu ko pour wane ne l'islam bàyyiwul dara déedéet bàyyiwu ko bàyyiwu ko soxna Faat Bintu ndax maanaam man naa génn jigéen gi mën na mënta ñàkk génn ndax des fois dama naan toogaay gi ci kër gi bu naree jur jafe-jafe yokku yàqute gi génn da koy tane ndax génn nañ cay egg mhm. waqar na fii buyuutikunna la wax tabar tabarraj na tabarrujil mhm. jaahiliya al uula mhm. kon mën naa am comportement yi ñuy génne jikko yi ñuy génne ak buñ génnee lu ñuy defi loolu la lislaam di lijjanti waaye toog gi ci biir kër gi bu ñun ñëpp soxna bintu mii bu toogoon àdduna tukki mhm. ndax man waxuma liggéey la ko liggéey di jëriñ waaye li muy def ci ay gone jàmbur mhm. gone jikko yu baax ya muy def ci ñoom bu toogoon ñun ñu yëg ko ñun mhm. ñun ñi nga xam ne suñuy doom ñu leen di jàngal ci biti kon toog gi léeg-léeg eh, di dina doon luñ jàngat kan moo war a toog ak nu ñuy toogee ci kër gi li mat a lijjanti mooy jigéen dafa war a génn dem liggéey waaye nu muy génne nu muy génne wala très bien nu mu a génne nu mu war a génne na ko na ko lislaam sant boo seetee am na xaddi eh, aaya boo xam sababu nuzul bi lu ko waral mooy bi nga xamee ne nii jigéeni jaahiliya yi dañuy génn mhm. jigéeni jullit ñi di génn góor ñi daan làqatu ci mbedd yi di leen dogaale di am lu ñu leen di def loo xam ne neexu leen mhm. mooy façon siif di leen saakuta neexu leen violence bi ñuy wax ni actuellement violence mhm. boobu amoon na ci jamono yonent bi bi ko jigéen ñi jooyee jàmbat ko lu leen suñ boroom wax euh, euh, euh, xul li azwaajika yaa ayyuhan nabi xul li azwaajika wa banaatika wa ummahatil mu'minin yuddiniina waaw wa nisaa'il mu'minin yuddiniina mu'minina alay min jalaabi bi hinna mhm. foofu dafa am mhm. ñuy génn nañuy seen jàllaabi yu jot mhm. ba bu leen xale yu góor yi làqatu ci tàndarma yi buñ séenee ku sol jàllaabi muuru ñu xam ne kee julli la duñ ko laal bu dee ku sol leneen nag ñu ne ab jaam la wala amut kilifa nañ ko laal kon ba nëgëni jigéen dafa war a sol jàllaabi bu jot dafa war a sàng yaramam ngir kon agresseur yeeg ñiy def leneen ci yoon war ko xàmme comportement boobu la lislaam soxla jigéen di ko wallaay soxla lu metti lu nga xam ne am na ndax dégg nga benn jigéen bu soloon xijaabam mhm. muur yaramam mhm. nit ñi dogale ko euh, futti ko ba mu set ne ko ndax loolu jaaduwul ci suñu réew mi ndax muuraay affaire cosaan la. wax jee bëri nag. Sénégalais yi dañuy wax te duñ xam li ñuy wax. waaw xam nga lu tax. Mhm. télé yeeg rajo yi ñëpp àndandoo naan muuraay muuraay muuraay di ko gàntal di ko tere. Mhm. ñu ne président tere na ko ñu ci yokk yeneen i wax yoo xam ne da koo jarul. Mhm. léegi nag gan muuraay la président tere. gan muuraay lañ lay bañ sax benn terewu ci benn. yooyu la nit ñi yokk nag di ko taawil di ko waxee leneen terewu ci benn nit ñi topp nag naan président da koy bañ da tere ku muuru nañ la téye bañ sañ a jàpp jigéen ci mbedd mi di ko summi kon booba war may jigéen xotti nañ ko ki nga xam ne suturaalu yaramam ab annabi waru koo laal bu ñu demee ba di ko tëral ci mbedd di ko futti kooku Euh, karaama ja suñ borom joxoon jigéen tegg nañ ko teg fee mhm. waaye damaa defe ni ki ñemee sañ a def loolu mhm. kon jigéen ji yor kartam di jaay boppam di wane ne am na liberté wala ki def bopp neenam teg gërëfaasam bu gudd buñ ko dabee war nañ koo sumi war na jërëjëf buñ ko dabee war nañ koo sumi ah macha allah mbàkke bàll loolu nga wax lool la kooku buñ ko dabee defe naa moo war a am problème soxna bintu xam nga yonent bi dafa waxoon ne euh, bi nga xamee ni euh, soxnaam yooyu macha allahu taala yàlla wax na li mu wàcc si ñoom nañu muuru muur njabootam yu jigéen ñi waaye muur itam jigéen ñi nga xam ne ñooy jigéeni jullit ñi kon yëf yi yamul rek ci soxna yonent bi yamul rek ci ay doomu yonent bi kon mboolem kuy jullit dangaa war a muuru ya yàlla ne génn leen mun ngeen a génn liggéeyi de wala waaye nag wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyatil ula loolu mooy lan loolu mooy li nga xam ne mooy génn ñaaw boobu nga xam ne moom la jigéen ñi di génn di wane seen bopp moo xam ci liggéeyukaay bi la moo xam ca ca ca mm, euh, mbirum àdduna la moo xam même ci religion bi tey lan ngay wax ñi nga xam ni ñu ngi si yoon bi di ñëw jëbal si Touba dëkk bu tedd bii macha allah taala jigéen ñooñu yan recommandation lañ leen di jox bala ñoo egsi ci suñu dëkk maam bu sell bi nga xam ne Serigne Sidi Maxtaar ci boppam yàlla na ko yàlla may gudd fan gu ànd ak wér gi yaram dégg naa ko mu ne jigéen ñi nañu suturaal seen yaram yi yow soxla Bintu ak coow li ni mu bëree tey ci kaw suuf lan nga ban jàngat nga am ci loolu. waaw li may loolu lu ma ciy wax. Mhm. du euh, mën naa koo yaatal ndax waxuma la sëñ Sidi ne nañu nañu nañu muur suñu yaram yi wala kiin fii nii dañ fee am benn benn benn ñu ko benn kuréel boo xamante ne ñu ngi ko mhm. wooyee safinatul amaan mhm. boobu li ko tax a jug mooy mhm. képp kum gis si mbedd yi nga col col goo xamante ne dëppoowut ak diine ñu summi la jël yére bi yóbbu jël la solal la loo xamante ne nii dina muur sa yaram waaye la nga soloon ca baaxul dañ lay summi solal la leen kon kii def loolu fii ci dëkk bi fii ci dëkk bi am na loolu kañ la fi am loolu yàgg na at yi yëpp yàgg na fi waaw ah, moom la ñuy def marché beeg yëpp la ñuy wër ku taseel nga sol sol gu amul sol yiwee boo xam ne yiwul daal du col ko di lislaam danga koy ñàkk yére bi yére bi danga koy ñàkk danga koy ñàkk ñu summi la daal lay solal ndoket nga dem wala abbaaya bu nga dem ñu daal di téye loolu xam ah. nga kii def loolu kon. ah loolu loolu war nañ ko médiatiser ah wax ko ba mu ba mu ba mu. si loolu yàgg na yàgg na Touba. Ah, yàgg na Touba ah waaw gis li may ñëw Touba yëpp loolu musuma ko. loolu am na fi waaw. ndaxte jigéen ci boppam suñ borom daf koo bindee. Mhm. muy koo xamante ne nii dafa war a mën a muur. Mhm. awraam ci lan. Mhm. li tax mu mën a muur awraam mooy koo xamante ne nii la man na yóbbee fitna. day day day xëcc fitna. waaw mën na romb góor sol sol goo xamante ne nii diine bëgg ko. Mhm. mu yóbbee góor googee fitna. fitna bu bon sax. boole ko. malaaka yi nga xamante te ashaddu min al-qatl waaw fitna. fitna la koy yóbbee goo mhm. xamante ne nii. Mhm. mën na koo jural lu nekk. ca yow yaa ko ko bu boobaa. bokk na cee suñ malaaka yi nga xamante ne yërmande yi sa bopp boo ko muurut. allahu akbar kadaalika naka noonu. doo am yërmande doo am yërmande yàlla. waaw kon muur sa awra foofu. léegi xëy na si jumaa ji ñemewuñ ko def. Uh-huh. mais léeg-léeg nga gis ñoom jigéen ñi ñu rang. dugg kër benn kilifa moo xam bu góor la wala bu jigéen nga gis ne ñoom seen muuraay ya foofu dañ koy dindi te kilifa gi dañoo ñëw tàll suñu loxo pour ne ko ñaanal ñu ba pare am kenn koo xam ne mm. ma ngay dàq malaayika yërmande yi kon yërmande ji jooju yërmande ji du wàcc du wàcc du wàcc du wàcc loolu muuraay moom ñu ciy wax mm-hmm. nit ñi ci boppam ñoo nekk ñoo xam ne ci boppam dañoo ëppal waaye bu nee Macky Sall day tere muuraay loolu sax waruñu koo gëm parce que Macky Sall jullit la. waaw président day wax président euh, président jullit la. <laughs> waaw kon kon mënuñoo wax ne. Uh-huh. day tere muuraay. waaw loolu seeni seeni ba pare man ànduma ci. nit muuru. Uh-huh. nga romb ko xotti woon maam. Uh-huh. loolu boo nee ab jullit nga sax jullit des na. lool ndax waroo gis awraam. ba di ko ba di ko ba di ko ñori. dëgg la kon sa jullit des na. moo tax war nañoo seetaat. kër yi war nañ cee commencé waat di yar xale yi ndax yu bëri ñàkk yar rek la. maanaam parent bi nga xamante ne moo la war a éduquer ci l'islam moo la war a wax nii si yow bu fekkente ne moom mooy xëy solub si bu gàtt. faaqidu shay. laa yu'ti laa yu'tihi wala mu solub jiinam ca moom moo war a gide xale yi kooku foofa dara du fa sotti. wallaahi kon yar day commencé ci ay waajur ba pare. sa waajur munta mel neen nii yow ngay am benn yar bi il faut moom moo war a seet boppam am nu mel li lii na yëpp soxla moom mu nekk sa waajur woowu pour ma mën koo transmettre ci yow. dëgg la dëgg la soxna Bintu soxla Bintu itam dañuy dem ci beneen parti boo xam ne jaamu yàlla gi ndax yàlla borom bi subhanahu wa taala bi mu nee jaamu leen yàlla waxul góor waxul jigéen ndax yàlla moom xalaqa zakara wa unsa wa anna saayukum la shatta dafa bind góor bind jigéen mais rôle yi ñu ñuy jox moo wuute. waaye ku nekk ak sa responsabilité ku nekk am na lu mu la sant ndax moom bi mu indee li mu am muy roo góor indi li mu am jigéen indi li mu am ñu boole ko fonde ko ci waa biiru waajur loolu yëpp yàlla bi mu ko boolee ba pare dafa wëlbatiku ba doom génnee yàlla nu mu def dafa wëlbatiku dénkaat ko ndey ca loxoom yu nooy yooyu daal di koy jox ween ne ko nàmpalal ma ko wal waalidaatu yurdiana awlaadahunna lay ni mu ne nàmpalal ma ko ñaari at yi yow ndey yow laa ko dénk xam nga loolu foor na yàlla li mu am muy doomu aadama nga xam ne moom la gën a fonk mu jigéen war naa am loo xam ne yow sañatoo koo réere léegi nag soxna Bintu ñu gis ne jaamu yàlla gi rawatina julli yi rawatina koor gi rawatina azaka bi rawatina ba ci dem màkk bi gis nga ni ko jigéen ñi jële léegi jigéen ñi jël nañu dem Màkka jigéen ñi jël nañu ñëw Touba gis nga booy seet tey ci statistiques yi nga xam ne moom lañu am lii lii lii màggal si ci jigéen a góor booy seet jigéen a ëpp su dee Màkka gi jigéen a ëpp te jigéen ñooñu ñu réere mbiru diine la ñu ba ne mër mër mër mëralal yow ban leçon nga leen di jox ak ban conseil ngay jox jigéen ñooñu pour ñu xam jaamu yàlla googu ne góor ak jigéen ñoo ko bokk rawatina nag ci màggal gi ci Touba. waaw soxna bi Bintu foofu jaamu yàlla gi euh, damay faral di wax ne lu ci bari ginnaaw waajur yi jigéen ñi la neex xañ na doon na baax ci waajur yi ñu taxaw doom yëpp bañ jàng ñu taxaw doom yëpp bañ xam seen diine waaye ngal la waaye bu ko waajur bi deful boo paree li ngay daj ci pour comprendre sa téléphone bu bees bi ba xam mëne bi daj ko ngir xam sa farata maa la ko wax de ah mariage de couleur si yére bi nag ak ak ak ne damay wax toujours ma ne ndugg suppu kànje ndugg ceebu yàpp bu weex ndugg dëxin ndugg baasi salte moo gën a jafe suratul fatiha moo ko gën a jafe soxna Fatou Bintou jërëjëf ci li nga wax moo ko gën a jafe ah te effort bañ cee daj nag di nekk ci mbedd yi manifesté wu bi ma ko toggee dafa neex bi ma parfum woo façon yi ma jaxase la ma sañse sa màggal ga la ma sañse mi ngi noonu lam sañse lam jaxase temps ba mu ca def bu ko defoon ci fatiha mu moo ko bu ko defoon ci farata njàpp moo dañuy dañuy ko portable bu gën a rafet ñoo koy yor te day compliqué ba suñ kilifa yi xamuñu ko te koo ko ci jox une semaine mu comprendre ko nu ñuy connecté woo xam nañ ko te xaaj bi jànguñu <laughs> koo ci wax mi ngi jokkoo xam na nu muy def ba man daal damaa li gën a jafe muy technologie <laughs> dañ cee aay te nanguwu ñoo xam dara ci diine kon nag soxna Bintu nee na lii technologie ni mu jafee te tey jigéen ñëpp maîtriser nañ ko boo seetee suñu tele bi am na poste yu bëri ay jigéen a ko yor macha allahu taala boo seetee tey boo demoon tey présidence de la république am na poste yu bëri jigéen ñaa ko yor parité boobu ñuy laajte te parité bi seen xam-xam may leen ko mais lu tax nag diine ji ñoo fexe ba parité ci ak góor ñi man man man sama sama problème mooy loolu diine ji ndax bëgg loo diina il faut boo ko bëggee dund jafe na te jigéen ñi ñu ci bari bëgguñu lu metti mm-hmm. te diina moom yombayul noonu képp ko bëgg a yombal yombal goo xamante ne nii rek bañ na koo sax léegi dañ koo bëgg a def boo xamante muuraay yoo xamante ne ay muuraay fenn muuraayu modd muuraayu modd sol jiin wala muuraayu modd waaw kay teg xijaab ci kaw waaw xam loolu du diine <laughs> déedéet loolu du diine mm-hmm. jigéen ñi il faut ñu delluwaat si diine te soxla soxna Bintu dagguma la yaay booy jóoba jubba mhm. mais xam nga yonent bi wax na benn xadis bu siiw sin faani min ahlin naari lam arahuma mhm, mhm. lan la ci teg kaasiyaatun aariyaatun maailaatun mumilaatun ruusuhunna ka asnimatil buxul mu teg ci ne laa yadxulna al jannat laa yadxulna al jannat boobu xadis boobu yow noo ko déggee ci loolu ñuy def te loolu mel ni dafa dagan ci kaw suuf te yonent wax ne laa yadxul aw lan yadxulna al jannata wala yadxulna al jannata loolu doy na waa ndax soxna si. waaw lenn moo ci am muuraay it fii lu tax mu jafe ci suñ société bi. Mhm. dangay ngay muuru ñu di la gaafal loolu am na fi. loolu ñëpp wérante mhm. yow da ngay te gaaf tenj waaw <laughs> wala ñu di la saboté. waaw xam nga yooyu yëpp da ciy dugg. ca jigéen waaye waaye ñooñu xam nañu lan la yàlla wax ci ku muuruwul. xam nañ ko ñu ci bëri xam nañ ko. xam nañ ko ci boppam ñu ci bëri xam nañ ko cheveux naturels yi moo leen baawut ñu muur waaw maanaam jigéen ñi dañoo bëgg fees mhm. bëgg fees lañ def te boo munoo yenn fees yi munoo koo fees déedéet maanaam munoo sol loo xamante ne nii day génne sa awra mhm. minute bu toll fii daal di lu ko te yonent bi wax ci li mu ci wax mu wax ci li mu ci wax te teewul ñu dégg ko teewul ñu dégg mooy lan laa yadxulul jannata mooy lan soxna soxna bintu duñ dugg àjjana duñu dugg àjjana waaw ndax duñu dugg àjjana boobu waruñoo tiital wala yë aha soxna bintu xetu àjjana sax du leen xeeñ kon ndekete jigéen bi nga xam ne muuruwul moo xam ca ca fa muy liggéeya la saa yu génnee ba nga xam ne ñi yàlla wax ne walaa yub diina na rek na ko wóor ne moom xetu àjjana pare na ci ak ni ñu mën a góorgóorloo ci def lu baax ak ni ñu mën a góorgóorloo ci ziyaare seeni sëriñ ni ñu mën a góorgóorloo ci indi ay berne ñu ko sëriñ Touba waxee woon ci màggal gi xam naa ne li ñu desee euh, soxna Sang may wax ne ma heure bi ñett nañu lool waaye yonent bi daal bëri na lu mu nuroo léegi sëriñ Touba ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi gàddaaye woon ci safar safar la génne woon sëriñ Touba génne fi safar kon plateau yii di ñëw dinañ ko gën a tas léegi dama lay jox soxna Bintu nga jox leen conseil ak lan ngay tàggoo ak ñi nga xam ne ñu ngi toog jàkkaarloog yow ci àdduna bi yëpp. waaw soxna Faat Bintu li ñuy mujjee rek mooy damay wax bu fekkee ñiy màggal si. Mhm. ak ñiy ñëw dañoo àbbu seeni maam ay kol soog a ñëw dem ca sa maam àbbu ko kol gu rëy ngir màggal si ndeysaan soo ñëwee ñi ngi fiy fekk waroo leen a fekk ak bopp neen kon comportement bi nañ ko xoolaat nañuy sellal yéene itam te moytu ngistal jigéen ñi dafa bari lu ñuy def loo xam ne yàlla dafa taxul eh, ngisal nag yàlla bëgg ko Serigne Touba ba muy dem ca géej ga dafa ngis sa ba muy dem ca tukki ba dafa ngis salu toon ba muy julli ca géej ga dafa ngis salu toon soxna jaara bi muy yor sëñ bi ci zahir muy tut tànk dafa ngis salu toon moo tax ay résultat am rek ñun nag ñu ngi sonn te suñuy résultat bariwul anamu dañuy ngistal allahu dañuy ngistal nañ wàññi ngistal gi te def te yàlla tax ginnaaw bis bi nag bi bisub sant la mhm. sukkuru nag mhm. kufru nañ ko sant nga ne sukuru. kufru du ci am soxna Bintu lan mooy sukuru. sukuru mooy sant. kon nag kufru mooy lan. mooy def loo xam ne safaanub sant la weddi suñ borom. loolu munul ànd te suñ borom bëggut ku ko weddi. macha allah te it sax nag ñu xam ne Serigne Touba ku ñu yéene xéewal la ñun ñu di jullit te te gëm ko ndax xam nga lu mu wax euh, bi suñ borom di wax xalilun min ibadiya shakur ñu néew ci samay jaam ñoo may sant mu am sant daraja bu mu ko jox kon bu sëñ Tuubaa ne sant li leen ma yàlla ñun la yéen a xéewal waaye moom sant taw wallaay ndeysaan jërëjëf Mbacke Balla Mbacke kontaan naa ndax lii rek la ñuy xaar ci yéen waa soxna Bintu Diop macha allahu taala yow tamit lan mooy sa daaneelu kàddu yéen nag yéen teg naa leen loxo ñàpp de te dootuma ko teggi nag <laughs> ñaax jigéen ñi nga xamante ne ñoo war a ñëw màggal si. Mhm. yëkkatil tuuti ndax ñoo war a ñëw màggal si. Mhm. ñoo xam ne bis bii lii du fo. waaw comme ni ko sëñ Fallou waxee woon. Mhm. du feetuk fo. du feetuk ngistal du feetuk yàq. bis la boo xamante ne nii dañuy sant suñu borom. yonent bi euh, Serigne Touba moo waxoon ne képp ku aju ci man wala képp ku ma sopp bu bis bii ñëwee nag ma sant la yàlla. kon sant yàlla ci lu mu bokk na ci nga loo xam ci alxuraan nga jàng ko. ak di tudd yàlla. ndax bu ñu tudd yàlla suñ xol day dal. Mhm. ak di jàng xasaay di suñ borom yi. Mhm. sama mbokk jigéen ñi nga xamante ne ñooy ñëw ku ci ñëw ne yow da ngay siyaare si ab sëriñ yow sëriñ boobu bu fekkente ne li ngay war a ci moom mi ci kon danga nga mun sa bopp soog koo siyaare wax dëgg yàlla ndaxte ñaanal gëm lay ñaanal munoo koo yërmande yàlla munu faa wàcc ba ñaan ga di man a nangu kon ñi ngi ñaan bépp koo xamante ne yaa ngi ñëw na nga muur sa bopp na nga sol loo xamante ne nii dafa am dafa dafa dafa déggoo war may dëkk bi ndax dëkk bi dafa am ay ay war ma nañ ko ay ay ay yoo xamante ne moom la méngool mhm. kon nañuy xool Mm-hmm. delluwaat nag yar xale yi. Mm-hmm. soxna si ñu ngi lay sant bu baax yow tamit di la gërëm kontaan nañ trop di rafetlu nag sa sa taxawaay ci société bi. dëgg la dëgg la ndaxte su jigéen yëpp meloon na ne yow yaakaar naa moom société bi ci wàllum jigéen ñi li ciy yàqu du bari. jërëjëf ndax bay sa waar bu baax. ñu la gërëm jërëjëf Jóoba Jubba jërëjëf waay ah, kon nag mu ngi noonu mbokk yi. ñoo ngi fii ci Touba macha allahu taala dégg ngeen alquran jooju ñuy waajal àjjuma ji macha allahu taala ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ah macha allah di leen ziar ci soratul fu yi képp ku pare soratul kahfam na nga ñu sànni ñaan di nuyu nag suñu waajur yi góor ak jigéen mag ak ndaw macha allah taala may nuyu nag mbokk mi nga xam ne moo jaar fii ci man ci màggal gi muy soxna Ami Diagne ca Cambérène de ne ma woon boo demee ca màggal ga ca dëkk sëñ Touba bu tedd ba solo ma sa moo tax lu mu xat-xat daw naa soli ko yàlla na ko yàlla fay soxna Ami Diagne ah macha allah ca Cambérène di nuyu waale Aïcha waaye di nuyu nag sama kaaw alaaji bi maa ngi koy nuyu bu baax ndax moo ma jox ndigal ma mën a ñëw fii di ko ziyaar ak samay waajur ak samay doom ñoom ñëpp di wax ne daal waa Sénégal yëpp ñu wax ne waa adduna bi ñoo ngi fii ci Touba ñu nag waa TFM macha allah taala ñëpp nañu góor wa axiru daawaana daawana alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu